xadd kaana nekkoon na moom yonent bi saa tawasuti di boroom ak digu doomu ci bind fil xaddi ca ba nga xam ne mooy taayab jëmmam ja jaali te daan feeñ sutati ànd ak ak rafet ànd ak ak feeñ Moustapha boo ko ne jàkk xam ne yaa ngi xool jëmm ju rafet walam yakkun nekkul woon Mustapha bil mufrati di ku rëy ba ne bëng mel ni boxeur yërëm yi dijj Mustapha melul woon noona walam yakkun nekkul woon moom Mustapha bi aadami doon nit ku ñuul Mustapha melul woon noona yi deru yaram wa walam yakkun nekkul woon moom Mustapha mu taxama di aji rëy ba mbux ri Mustapha melul woon noona walam yàkkun nekkul woon moom rasulillahi mukkal sama di boroom lex yu rëy ba ne xab xabaaral ah ah rasulillahi melul woon noona bal lu fi nekk faaxa kowe woon na ku la képp koo xam ne sama nit nga kook da yëkkati ko bopp ba féete kaw loxo ya yooru mu yor ñaari tànk rasulaay la féete woon kaw min mun tamin kok askanoona ci doom aadama min mun tamin li aadami képp koo xam ne askanoo woon na ci doom aadama rasulaay la féete woon kaw kaana nekkoon na yattoolu di gën a gudd ku la man képp koo xam ne maasaawu andi ngeen di dox même boo dem njool yàlla dalay wàcce ba nga rasul tiim la nga nga gàtte fi kanamam fi kulli zaman ci bépp jamono képp ko ànd ak di dox rasulullah tiim la ca kaw noonu la ko yàlla defaloon wakaana nekkoon na waasi xal atan di aji yaatu ay wagg diggante ñaari mbagg rasulullah yi dafa sore ku jëkk bind lu mu sol mu jàpp ko yadhaku daana reey moom rasulullahi bi tabasumi ci muuñ bu daan ree da daan mooñ waaye mooñ gu saf xorom ndeysaan sëriñ Tuubaa nee na wa huwa rasulillahi jalilun xulabu ku màgg ak ngarañ lawan dafa ñawoon dafa foogoon dafa intelligent woon ba yaaduhoo weexaayu yaram wa nag musarabu dafa amoon ay tupp tupp bi xumratin tupp tupp yooyu ngay gis ci nit koo xam ne yaram wa daa jib nga xam ne dafa tupp tupp ya dafa nekkoon mel ni lu xaw a marron xaw a tiire jëm ci noir doon tupp tupp yu ndaw yu rafet ca kaw deru rasulullahi noonu la meloon oh. wa ahdabun rafetaay ba dafa taxoon bët ya rafet xef yu gudd moom rasulullahi boroomi xef la woon wa ahdabun wa anjalun borom bët bu rëy la woon bët bu dijj te yaatu soo rasami ànd ak rafet moom rasulillahi bët ya daa rafetoon te mu ordonné jëmmam ja daraam ëppalutoon lépp rafetoon te ordonné baat yi ngay firi nag mooy li baati arab bi firi baat yu ñu gëstu la ca académiciens yi gën a mag ci àddina bi ndax jës bu dafa am baat yu naqaree firi waaye coono ba ca war ba xam firey baat yépp indil nañ la ko fii wa an jëlun boroom bët bu yaala woon soo rasami ànd ak ordonné noonu lañ koy firee ordonné mooy rangé mooy koo xam ne mbiram yépp a sell te jekk num koy doxale Moustapha yaftaaru daana def ray fi asna ci na mu gën a yëkkati ko ba moo ñaan da ngay gis leer gi ne ray mel nik melax oh kal barxi réeg da daan mel nik melax aw habbil xamaam mbaa bu yàlla di taw lëndëm ak wax wax set ba melax gi ne rey fekk yàlla jaa ngi taw ba luur yiy wàcc luur yooyu nga xam ne day mel ni glace yu ndaw di ànd ak taw biy wàcc ci lëndëm ak wax set mu ne rey melax noonu muy lerax leraxe bu rasul lay reyaan noonu la daan lerax leraxe ndeysaan wa dëx ku reyam ga moom rasulillahi yejjuloo da daan daq zalaam ak lëndëm bu Moustapha reyaan fu lëndëm sax da daan ray leer nañ kasuru da daan mel népp làmp fi sulami bopp des koo taal cik lëndëm ba Moustapha reewoon loola moo daan am woo wacci xoo xar kanam rasulillahi ba mu dëwëru dë wëndeelu woon moom rasulillahi xamisun dafa centré woon maanaam dafa ñande woon biir ba rëyutoon jëmm ji noonu jëmmi sëriñ Tuubaa ji mel rek doo ci xàmmee benn biir bu rëy noonu la Moustapha meloon asharu ànd ak ab taar bu ànd ak xeetu weex yoo xam ne dar ba weexe noo xam ne da daan lerax lerax day sànn jot goo ko xool rek mu mel ni éclat mel ni couleur bi day changé noonu la yaram mu Moustapha meloon waxoo moom rasulullahi bahiyun boroom ab taar la woon asmaru yaram wadd léeg-léeg mu mel ni daa marron xaw a tiire jëm tuuti ci noir asmaru murattilun takallumi bu daan wax wax ja da daan leer muy def jabbet jabbet jabbet leer nañ leebul barul takul dërul dotoomul nosul Moustapha kaddu yi set wecc la daan wax moom rasulillahi kaana ma zahabi boo daan xool xar kanam rasulillahi ba dangay gis lex ya mel ni ndoxam wurus la ñuy xelli ndoxam wurus buñ koy xelli ni muy lerax leraxee noonu la lexi rasulillahi